ay ca doore kox yéen a kaay groupe des médias Karim Meïssa Wade ma ñuy waxtaani ak dellu seem ci réewum Sénégal tribune yéen a kaay nee de mbir ndekete yoo condition daf caaraax ndax nag ambassadeur bu Arabie Saoudite nee na mbir yi sa Qatar de ndekete yoo Karim Meïssa Wade mii takkal nanu koy bagaasam jox ko yo ak sërija ngir mu ñibbisi waaye nag président Macky Sall moo bañ ba tëddi suuf ni mukk du fi dikk lu dul rek Karim Meïssa Wade mii waaw Samba na nangu la Idrissa Seck maanaam ñëw bokk si njabootug libéral gi waaw retrouvaille famille libérale faw bokk te nag ginnaaw mburox soow kon Gloria en téléchargement ngay am foofu ndax nag umpul kenn ni Karim Meïssa Wade mooy buur di bu mi ci biir parti démocratique sénégalais bu doon groupe whatsapp ñu ne kon mooy roof di rocci ku ko neex mu intégré te coow li bu baree mu daal di rocci nànk teg xanaa du kon mooy dicté loi am su dee sañ te tànkam kon fii ci réewum Sénégal Karim Meïssa Wade nee na sama crédit doy na te sama connexion neex na illimité contrôle Senghor nangu waaye it la Pape Diop nangu bokk ci retrouvaille famille libérale gi yéene kaay groupe des médias nii fii la ñu ci négociation yi ak Karim Meïssa Wade critique ni Karim Meïssa Wade de maanaam Wade fils sa dowaa ga mu nekk lay diriger kon parti bi di def ak dindi foofu mu nekk lay imposer candidature lépp nag nekk ci supervision baay ba di Abdoulaye Wade te nag alkaalima Samba mii de Fara Wade Ndiak bu desee si moom rek léegi pënd ba wuri ndax umpul kenn moom la bëggal doom ja maanaam jiite réew mi 2024 te su ko jaree sax moom Abdoulaye Wade dana tëggaat retrouvailles njabootuk libéral gi évidence nii ndax dana yomb nag mbir yi du si wax de ay calcul la waaw waaw diggante APR PDS ku si nekk yaa ngi teg say calcul faw nga doon mathématicien doon nandite dëgg nag xam say intérêt ngir lu ni mel daa di antu les économies xaw ma si kande waaye ci parti démocratique sénégalais moom du yomb ndax gaañaa ngay démissionné fii ci réewum Sénégal ndax jamono ji ñu ngay daas fanaanal de nee ñu lii ñuy seen muy raam di dikk dossier Adji mii ñu tegaat ci taabul ji bés bu ñu ko bàyyee mu jàll moo di Ousmane Sonko candidature am dañu koy teg ci suuf gas tribune yéen ne loo ci xamul ndaje mi nga xam ne moo doxoon ci diggante Macky Sall ak ay députéem ci week bi ñu génne waxtaan wa yëpp nag mi ngi nekkoon si diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ani kan la tëgg procès national boobee waaye waa Pastef takk nañu taxaw de di leen dànxaaf nee nañu 2024 gisuñu luy teree bokk Ousmane Sonko si yooyu la jëngoon du Adji Sarr du Macky Sall bés yéene ni coow li coow li kay mi ngi sa assemblée nationale pencum ndawi réew ma ces yi sa assemblée nationale jot na nag te bu mbir yi awee si yoon poste vice président yeewi benn commission permanente yi nag benn bokk yaakaar bu amee juróom-ñaar yeewi wàllu am fa juróom-ñaar xanaa kon mooy cinquante cinquante rek lay doon mu des nag ani kan mooy jiite pencum ndawi réew mi le journal ni Aminata Touré de takku na taxaw nag te delluwul gannaaw benn yoon ngir jiite pencum ndawi réew mi Mimi Touré mi nee na ragaluma loolu ndax sama palmarès samay jaar-jaar ak samay ndombal tànk nag mooy sama weeruwaay lii rek nag doy na CV ngir ñu jox ma pencum ndawi réew mi jamono joojee de Dakar Times nee na président Macky Sall yàgg na yàgg na aha kay ani kañ ngay tabb premier ministre ngir nag am gouvernement bu yees ndekete yoo yéen bi nee na maa leen di wax ani lan moo ko tardeel ñu ngi toll ci ay enquête de moralité te loo leen si xamul nag président Macky Sall day xaar ba ñu installé assemblée nationale ba noppi ñu ne déetewaay mu xaar màggal gi passé ngir mu doog a tabb premier ministre Dakar Times nee na affaire yi nii la tëddee de du affaire de gisaane du wàllu météo lu leer laa leen wax yéen bi ne loo leen ci xamul nag jàpp leen ne maire bu Guédiawaye ko dindi le li nu war a dindi kay moo di ndoxum taw mi fii ci réewum Sénégal ndax nag su yeboo ñu waajal de ndax météo wax na waajal leen diggante fin août jàpp septembre ndox mi dana bari lool nag te état moo leen ko gën a yëg moo tax tribune yéen a kay sampaw laaj neen Antoine Félix Diome mii dafa xamul lii xew wala daf noo faalewul rek am dafa xamul fii mbënd mi toll fii ci réewum Sénégal ndax bu sañee taxaw naan mbir yi phénomène naturel la kenn mënu si dara loolu mooy takkaleen seen i bagage te aj fu waay xam wuti ndax ndox mi kat état mënu ci dara lépp yàlla la laas a kaay ni déedéet nag état def nay jéego tuubaa gi ma yootu Sud Quotidien nee na sunu cimenterie yi de ku yeboo ñu xam ne ci ak nërmeeru la ñu jëm Dangote yóbbu na personnel am yépp ci congé collectif jamono joojee de Sokosim ak cimenterie du Sahel ñu ngi si guuta guddi gu bët setagul ay jafe-jafe rek la ñu jànkoonteel te dara waralu ko nag nee na ñu mbas mi nga xam ne moo wees ak coowal Russie ak Ukraine boobu la guerre dañoo ci gën a dee 24 heures ne bu leen fàtte waa ànd gësëm nee na ñu ngay waajal gësëm de yëngal gësëm la ñuy def nag te jàpp euh, la ñuy ñaxtu bokk na ca ñi nga xam ne teg nañu leen loxo sa leen di bàyyi it yokkuteem salaire yi na maase kay yegg ba ci kër docteur Sidiya Ndiaye nee na su dee jàpp ngeen dat samedi ñun moom tey la ñu koy door collectivité locale yi tey jii la ñu koy door laa la wax doxum ñaxtu national la ñu woote teg ca grève 72 heures te ko am sa doom bëgg ko déclaré bie boo nga xam ne doo fa am kayit de ndax kenn du ko signé ko am sa néew bëgg koo suuli permis d'inhumer kenn du la ko signal extrait de naissance waxi noppi ñoom it li ñu bëgg moo di yokkuteem salaire rek na maase fii la mi toll ni yaram ak foo ca laal day metti dig daje si ne kay jàngi jëf Mame Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci revue de presse bi dina dellu si waat ci kanam à 13h bu soobee yàlla sur 89.7 Zik FM fii la ñuy daal képpee nag seen première partie wu matinale dañuy daal di xuus rek jàll.